الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi sant sunu boroom ñu ngi koy bàkk di ko kañ ci mboolem turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi noo ngi julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi noo ngi ñaan sunu boroom mu dëkkee dot ci waamem xéwal ci kaw yonent boog ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquranul karim xam ngeen ni sunu bind bi weesu ñoo ngi nekkoon ci tafsiru surati luq surati luqman borom bi defaloon ñu tawfiq ba ñu lekk si woon ci laaye ñaar fukkeel ak juróom ñett kon tey ñuy tàmbalee ci laaye ñaar fukkeel ak juróom ñeent ba ci jeexintalu saar bi sunu borom mi ngi wax ni أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل قتار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي و... لا يجزي والد عن ولد ولده يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن إن الله عليم خبير kon foofu ci laayey fanweereel ak ñeent mooy jeexintal saar wi ñu nekkoon di suuratu Luqmaan gis ngeen saar wi ak tàmbali ba li ci feeñoon ci ay jàngale waaye bi ci ëpp solo teyit néew na nga dem ci weneen saar wudut moom fekk ko ca muy taalim yu màgg yi nga xam ni luqmaan alxakim mi ngi ko doon jox doomam loolu bind la ci gépp yarkat waaye bind la tamit di njariñ ci képp koo xam ne dañ koy yar muy gone sunu boroom subhanahu wa taala ci laaye jii di ñaar fukkeel ak juróom-ñaar sunu boroom mu ni alam tara xanaa defoo ak taxaw seetlu xanaa gis ni alquran ñëw na fi ay yoon alam tara awalam yaraw yu demee noonu nga xam ne dafay ubbiloo nit ñi seeni gët ngir ñu xool lenn ci kéemtaani sunu borom bi doomu aadama juy dund ju nekk ginnaaw bu ko ngëm yàlla dikkalee ngëm yàlla googu danaan gegg benn place ngëm yàlla kem lu nit ki def ci ay yiw da yokk kem lu nit ki def ci ay bàkkaar da koy wàññi waaye bokk na ci li gëm yàlla di yokkoo mooy def ay taxaw seetlu ci kilaani suñu borom yi doomu aadama bu jékki-jékki rek ubbi gëtëm ni jàkk kéemaani suñu borom yi di xool mu xam ni lii kat kenn rek moo ko fi def mooy suñu borom mooy zul quwwatil matin asamaan si ñu tiim nga xam ni suñu borom mi ngi ci wax ni banaynaaha bi aydin wa inna la muusiun dëgër këcc kawe lool ni degg ca kaw te dara téewu ko te ba léegi daan wut loolu kàttan la googu kàttan keneen amu ko ku dul suñu borom wal arda suuf si ñu nekk mu ni farashnaaha fa ni'mal maahiduun suñu borom dëj ko mu ni degg moom it dëgër këng ba léegi mëtaxut suñu borom loolu kàttanam la mu ni wa min kulli shay'in xalaqna zawjayn lu ne nag suñu borom def ci góor ak jigéen loolu bokk na ci li tax mooy laallakum tadakkaruun ngir nit ñi mën a waaru mën a fàttali kon taxaw di seetlu kéemaani suñu borom yi nga xool jaan fees dell ak dangar kum mat buñ la luggut nga jaaree fa dem allaaxira ndax dangar ji muy bàyyi ci yow waaw moom mi yor dangar ji ba di ko joxe ñu ngi koy jox ñu cay dee moom lu tax dangar ji reyu ko kéemtaan gu rëy ngoo silmaxa si dox ba mu yàgg amatut ku ko mat muy palantul boppam ba xam fa mu jëm njàkkaar di xoolee bëtam ba ni tëll ci pax mi am na lu ne ca gannaaw gone gi doog a judd xamut luy ree xamut luy jooy xamut samedi xamut dimanche xamut ngent xamut céet bu defaroo ci yaramam jooy bu xiifee jooy loolu am na lu ne ca gannaawam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne boo ciy xool da nga ciy gis kéemaanu suñu borom suñu borom mu ni alam tara xanaa gisoo ni anna allaha sa borom yàlla képp yuliju layla fi nahaari mooy dugal guddi gi ci bëccëg bi wa yuliju nahaara fi layl mooy dugal bëccëg bi tamit ci guddi gi mooy dugal guddi gi tamit ci bëccëg bi bi maanaam guddi ak bëccëg ñoom ñaar dañuy duggante duggante gi léeg-léeg nga gis bëccëg gudd lool guddi gàtt léeg-léeg guddi gudd lool bëccëg gàtt seeni waxtu yooyu ñuy duggalante nga xam ne léeg-léeg boo masaana yegg ci ci waxtu sept heures nangam day fekk julli nga timis ba noppi kon yaa ngi ci guddi nga mën a dem ba yegg si ci sept heures te fekk timis jotagut kon fii jël na waxtu fële am na waxtu woo xam ni six heures ca suba six heures nangam day fekk jant fenk gut kon yaa ngi ci guddi gi jeexagut nga dem ba heure boobu léegi day fekk jant bi fenk na ba naaj kon ñoom dañuy duggalante suñu borom kat kéemtaan gi mooy yatlubuhu xasiisa def gu gaaw la koy def dinaa koy joxe misaal boo yeewoon suba léegi ngay def sa baax yar salaxaat toog ci digg ëtt bi boo toogee da yàgg nga gëm deux minutes rek boo xippee da ngay gis ni diggante bi gën na fee leer te moo ne jamono da ngay xool doo sentir leer da ngay jékki-jékki rek affaire bi dem rek bii di ñëw ba nga jékki-jékki rek gis ni leer na yatlubuhu xasiisa def gu gaaw la ko sunu borom di def ci dugalante googu kon sunu borom ni wa saxara shamsa sunu borom moo tàggat jant bi wal qamara ak weer wi kullun benn ci ji rek ci ñoom ñaar yajri dafay daw ila ajalin musamman ba àpp ba nga xam ni moom la ñu xam àpp boo borom xam-xamu firi nañ ko ñaari firi bi ci njëkk mooy jant bi dawa dawa daw ba àpp bañ xam muy sojot mu daal di so weer wi dawa daw ba àpp bañ jot muy fajar gi jot mu dem beneen bi mooy àllaaxira fa ko yàlla yi jëlee te ñaari firi yëpp benn bu nekk wér na Abu Dar mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma est-ce que Abu Dar gis nga jant bi mu ne waaw gis naa ko mu ne xam nga jant bi buy so nu muy def mu ne ko déedéet mu ne ko buy so day tenkam tenkami ba yegg ci ron aras mu su jootal suñu boroom laaj suñu boroom ndigal suñu boroom jox ko ndigal mu doog a dem soy xadis ba mi ngi ci Sahih Bukhari kon kooku ci jaam yu mag yi la bokk ku dégg ndigalit la والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم gis nga lii waral muurug jant ak muurug weer di am suñu borom dafa wut ay raay yoo xam ni ci misaal fa la jant bay jaar ak foo xam ni fa la weer wi jaar weer wi ak jant bi ñoom ñaar duñ mas a daje mukk ndax saa bu ñu dajee àddina bi day tukki lu dul yàlla dafa dogal àddina bi na ma tukki weer di génn guddi bëccëg di génn bëccëg jant di génn bëccëg borom bi dafa bind ci asamaan si ay biddiw ak ay weer ak weer ak ak jant ak i biddiw gis nga su fekkente ni weer wi weer wi li ko borom bi subhanahu wa taala teg su fekkente ni jant bi dafa wër wala benn ci biddiw yu mag yi wër ba ronu ko su ko ronoo ba jël xaaj bi loolu la ñuy tuddee alxusuufu nisfi mooy muurug jant ak genn wàll nga xam ni muurug weer ak genn xam yaa ngi gis weer yi waaye am na lu des foofu la borom xam-xam yi fiq yi wax ni booy julli kon muurug weer mën ngaa bañ a guddal julli gi lool lool ndax comme muuru gi nekkul xusuuf kulli su fekkee daf ko muur ba ni taruus mu nga xam ne moom la ñu alxusuuful kulli nga xam ne mbir mi kenn gisatu ko su boobaa bees di julli dañuy guddal ràkka yi su ko defee ngir jant bi mën a wala weer bi mën a mureeku saa boo xamante ni weer wi dog na diggante jant bi ak suuf si su boobaa muuru jant daal di am moo tax yu mel noonu ak yi si nit ñuy wax naan diwa faatoog diwa juddoog ku mag a faatoog ku mag a juddoog ren dana neex ak nawet dana bare mu yëlt yàlla bu ñuy déedéet jant bi ak weer wi ñoom ñaar ay jaam lañ ci jaam yàlla yi duñ muuru mbaa ñuy mureeku ci dee kenn bu ngeen gisee ñu muuru na ngeen jéggalu yàlla tuub sarxe te ngeen julli kon borom bi moo tàggat jant bi ak weer wi kullun kenn ku ci ne ci ñoom yajri day daw ila ajalin musamman ba ab ba ko suñu borom dogal wa anna allaha ñu xam ne suñu borom kat bi ma taamaluuna ci lépp lu ñuy def xabiir ku ci dañ ci kumpa la xabiir aji dañ ci kumpa la bi ma taamaluun ci li ñuy def mooy kenn ku nekk ci ñun say jëf lu mu bari bari bari bari sunu borom du ko jaawaleeg jëfi kenn loolu sunu mbokk yi yalwaan di wax yàlla du jaawale jëf ak morom ma ku saraxe yaa koy fayeeku ak ñoo wax dëgg loolu di tawxiid ju wér la sunu borom du jaawale jëfi kenn ak morom ma ndax bi ma taamaluuna xabiir mooy lépp lu nuy def sunu borom xam na xam nga doomu aadama su yëgoon lii su xamoon ni lépp lu ñuy def rek sunu borom xam na ko su boobaa nit ñi di ko gis ak mu wéet ak mu ñàkk a wéet ak yooyu yëpp ca lay boole yemale waaye ak góorgóorlu moom da koy dolli yee yéen ñi tëdd jugleen sunu borom subhanahu wa taala dafa def doomu aadama muy koo xam ni kuy bari ay bàkkaar la kuy bari ay njuumte la doomu aadama dafa am luñ ko bindee noo xam ne léeg-léeg mën naa sawara te góorgóorlu su dee njaatigeem mi ngi koy gis waaye mu sàgganaka yoon jox bu dee njaatigeem gisu ko defe naa loolu liggéeykat yépp xam nañ ko doomu aadama dina kii gëm yàlla bu ñele ubudi llaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak moo tax nit ki dana àgg ci martabatul ihsaan def lu bon ci boppam moo ko dud yombati allahu akbar mbokk haadihi martabatun aaliyatun min akbari maratibi ibadillahi salihin martaba ju kawe ngoog ji gën a kawe ci martaba yi jaamu yàlla yi am am nañu ko am nag waaye bariwut gis nga tey ñun jëf lu baax moo la yombut yow jëf lu baax moo la yombut waaye nit bu dee ba gëm ni yàlla mi ngi koy muraqaba cinq cinq di ko gis xam léppam dara du ko ci ëmp dafay dem ba def lu bon ci boppam moo ko dud yomb moom moom maam def lu bon la dut mënati parce que taru seetlu gi nga xam ni mi ngi koy seetlu wala yëg gu mu yëg ni borom bi subhanahu wa taala mi ngi koy gis sunu boromu ni daalik lii lépp nag bokk na ci li muy sabab mooy ñu xam ni bi anna allaha naka yàlla huwa alxaq moom mooy dëgg sunu borom rek kay dëgg moom tax olof yi wax ni lépp lu dut yàlla neen la loolu li tax ñu di ko wax mooy leneen lu dut yàlla solo sa may wut déedéet borom bi subhanahu wa taala mooy dëgg mooy borom dëgg moo moom dëgg wàcce dëgg te di àtte ci dëgg ah anzal al kitab wal mizan waaye bil xaq lépp ci dëgg la ko teg alquran jii sax nag nee na wa bil xaqi anzalnaahu wa bil xaqi nazal ah ci dëgg lañ ko wàcce waaye ci dëggit la wàcce gis nga borom bi subhanahu wa taala mu ni dalika li lépp ngir ñu xam ne bi anna allaha yàlla huwa alxaq mooy dëgg wa anna ma yad'una mboolem li ñuy wooka jaamu ak a jox cëri yàlla min dunihi te du yàlla huwa albaatil loolu mooy ak neen lépp loo xam ne doomu aadama mi ngi koy jaamu wala mu di ko bàyyi xel wala mu di ko jox cërib suñu borom loolu huwa albaatil neen la lu dul yàlla neen la gis nga doomu aadama bu yàlla defee garab ak pas-pas njëmbatum pas-pas sax ci xolam mu gëm ni rës ju dal ci kawam yàlla dogaloon na ko balaa muy judd lu moy noonu rek la mën a demee àdduna bi sama njariñ kenn yoru ko ko dul suñu boroom kenn mënumaa lor lu dul yàlla moo ca ànd lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana mbirum wërsëg nag nga noppalu ci ndax ni nga ciy noppaloo mooy da ngay xam ni suñu borom bind na ko balaa ngaa judd mbirum fan dem hôpital fii passé fii sonn fii fay lu dul jeex ngir boo feebarul sax nga ne xaaral ma xool ndax feebar naa am jëru ko ndax bi kat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun am sa'id da ngay dugg àjjana ak doo fa dugg ak sa wërsëg ak fooy liggéey ak di nga tukkeeg doo tukkeeg lépp suñu borom noppi na ca rufiatil aqlaamu wa jaffati suhuf xalima ya jën bind yëkkati ndiku nañ fooy ya bind nañ ca ba noppi te kenn du ko gome nag kenn du ko gome doomu aadama su gëmee loolu moo tax am na benn borom xam-xam bu mag su fekkee jumma fatx al mawsili la moo doon wax lu mel noonu yow dañoo seetlu ne daal yow wala fatx al mawsili wala xaatim al asab kenn ci ñoom ñaar yow dañoo seetlu ni rëf rëf di nit ñi def di sonn tëst si yow dana ci fekk waa yow lu xew mu ne xanaa nopp la te xam ne sama wërsëg moom kenn mënta muus ba lekk ko mu jeex sama wërsëg kenn mënta muus ba lekk gis nga boo ko lekkee fii lay kale nga fot dee yàbbiwaat wërsëgu jàmbur kenn mënu koo lekk gis nga boo gëmee ni sa wërsëg kenn mënu koo lekk wallahi ni ngay noppaloo ci wutum koomu àddina yàlla rek moo koy xam wa kadalika tamit say jëfit nag duñ ko fay keneen sunu borom mu ni wa anna allaha ñu xam ni yàlla kat huwa al aliyu mooy ki kawe ki alkabir ku màgg ki sunu boroom toujours ci alquran ak xadis yonent bi dañ koy wax sifatul uluw te sifatul uluw sifatun min sifati al azama melokaanu kawe ci melokaani màgg yi la bokk a amintum mu ni man fi sama wa fi samai rizqukum wa ma tuadun ah wa huwa huwa alladi yunazzilu min alsamai gis nga wa anzalna min alsamaa'i gis nga aaya yu dul jeex yu yëpp di wane ni sunu borom ma nga ca kaw huwa al aliyu al kabir huwa al kabiru al mutaal ku màgg ki ca kawe mooy wane ni sunu borom ma nga ca kaw ana yàlla ma nga ca kaw loolu mooy aqidatu ahli sunnati wal jamaa al aqidatu saxiha yàlla ma nga ca kaw tiim arash daa toog déedéet sa yoon nekku ca daa taxaw déedéet sa yoon nekku ca loola moom daal ma nga ca kaw tiim arash tiim jaam ñëpp di xam seen lépp guddi gu jot mu wàcc ba ci asamaanu benneel di wax kuy ñaan ma may ko kuy jéggalu ma jéggal ko kon borom bi subhanahu wa taala mi ngi ci kaw loolu mooy li gën a wér ci pas-pas kon suñu borom al ali mooy ki kawe ki te it nag moom say jaam ba noppi yéeg ca kaw tiim leen ah sa xam-xam nekk fépp dara du ko ump ci yëfi jaam ñi guddeeg bëccëg ñoo bokk yam ca moom ndax guddeeg bëccëg fi nun la yam loolu tamit lu war a war a xam la maanaam mun bu demee ne yàlla daa am lu ñu naan guddi bu guddee ñu ni suñu borom a nga ca guddi su bëccëg jotee ñu ni moom a nga ca bëccëg bu naaj tàngee ñu ni moom naajam tàng déedéet yow ay naaj wu tàng guddi nawet yooyu yow la concerné yow moom léppam moo bokk yam ca moom lépp a leer naa ñi moom sunu borom subhanahu wa taala xijaabu gun nuur kiiraayu sunu borom nga leer la ci xadis boo xam ne mi ngi ci saxi muslim yonent yàlla bi nee na kiiraay ak leeram googee su ko këcc woon rek dindi ko leer gi ni pëyëf suñu kaw leer gi lu mu laal day lakk allahu akbar loola tax Moussa alayhi salaam ba mu ko bëggee gis ñu ni ko lantaraani ah jëfandikoo sax lan nag waxuñu ko lam lantaraani Moussa insisté bëgg a gis borom bi subhanahu wa taala sunu borom daal di koy mosal ca leer ka falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakk kan wa xarra Moussa saaiqan Moussa ni gànjang ni këw ni këlëb daal di xëm gis nga bi mu ximmuli ko li mu njëkk wax muy subhanaka tuub naa tubtu ilayk tuub naa ni ko damaa bëgg a gis yàlla kenn du ko wax foofu nag su yaa ngi ñoom bu ñeeg seen nañ di wax ay wax yoo xam ni daanaka waxi naxa sa kandag ak ku daanu ci sa wet la waaye gëma ni lii la borom xam-xam yi yiy dellu ci ñoom ahlu ahlu tafsir wal xadis loolu lañ ko firee gisul sunu borom déedéet lan taraani la ko wax dooma gis yent yàlla mu ne walan tarawna rabbakum xatta tamuutu seen borom du ngeen ko gis lu dul da ngeen a faatu it nag kon alkabir mooy ku màgg te it mooy alkabir almutaal sunu borom tekki ni alam tara xanaa defoog seetlu ci ba léegi ci kéemaani sunu borom yi ni anna alfulka naka gaal gi wala bato bi tajri day daw fil baxri ci géej gi bi niamatillahi ci xéewali yàlla yi allahu akbar alfulk wa ayatun lahum anna xamalna durriyatahum fi lfulki almashxuun suñu borom ni kéemaane gi gu rëy mooy bato bu def ay tonnes yi tonnes yi tonnes cinq mille tonnes cinq mille tonnes allahu akbar xoolal cinq mille tonnes ni mu bare benn bato def ko ba noppi ni dégg ci kaw ndox mi ah sunu borom mu ni muy daw ci kaw ndox mi bi niamatillah ci xéewali sunu borom yi bala ngaa xam ni du xaral ak doomu aadama tubaab yooyee wala ñu ko mën a defar ñoom mbooloo nañ lal aw këyit mbaag basang ci kaw ndox mi rek taxaw ca nag loolu rek la ñuy xaar loolu moom saa buñ ko defee rek wax dëgg yàlla nag moom ni daal leen jox lenn ci cër yi ñuy jox suñu borom waaye du am moo tax duñu leen ko jox bu ñu laloon seen basang teg ko ca kaw ndox mu bu soobee yàlla ñoom foofa la seen bàmmeel di nekk te moo ne yàlla defal leen xaral la ñu teg bato bi ci kaw ndox mi jërul tiitaru ndax lépp yàlla yéen a ngi fàttaliku almaa yi bato bañ fa defaroon tuddee ko albaaxiratu allati la tuqhar bato boo xam ni yàlla sax mënu ci dara noonu lañ tuddee woon seen gaal bi moo tax gis nga gis nga yàlla seet dafa mën a seetaat de moo tax imtiyaar ni laa ahada asbara ala allah yàlla daal kenn dàq ko muñ defar gaal ba noppi jël ci banti suñu borom yi ak matière boo jël matière première suñu borom moo ko moom ba pare moom la nga defar gaal teg ko ci kaw ndoxam mi ba noppi te ni gaal gi bu yàlla ñëwoon sax mënu ci dara suñu borom bàyyi leen nii baaw naa naka ba ba lawtiku ah di bànneexoo ko wër ci ndox mi foog naa mat na juróomi fan su borom def mu dajeeg nga ndaw xeer ci géej gi boo xam ni ba mu dajeeg moom ba mu ne ko till ci digg bi la xar loolu nag wa yurikum ayaati fa ayaatillahi tunkiruun te moo ne waroon na ko def ci bis bu njëkk ba de waaye gis nga sunu borom subhanahu wa taala ay ngërëm moom ak yàkkamte la ci amul xuliqa linsaanu min ajal wa xuliqa linsaanu ajula nit moo yàkkam ci waaye borom bi subhanahu wa taala ay kéemaanam moom dafay jóg sunu borom ne lu yurikum min ayaati ngir suñu borom wan leen ay kéemtaanam mbokk yi lii bu ko suñu borom deful woon ñaata ci bele ci ceeb ci dugub ci mboq yoo xam ni am nay réew yu mënta am te beneen réew buñ ko mën ci jëlee xam ngeen du tege ci avion avion li muy xarala xarala du ci tege su borom bi deful woon doomu aadama xarala gu doy noonu fan lañ koy teg ci ay giléem fu ñu koy dugal ci avion yi fu ñu koy def ci sareet yi déedéet waaye moyen bu tax doomu aadama mën a dund ci kaw suuf rek sunu borom yombalal na loolu lépp rek ngir doomu aadama man cee gis yàlla subhanahu wa taala gën ko cee gëm sunu borom ni inna fi dalik nekk na ci lii la ayatin ay kaawteef li kulli sabbaarin ñeel képp koo xam ne muñkat la shakuurin santaakoon sunu borom la gis nga ngëm yàlla borom xam-xam yi dañuy wax ni ñaari xaaj la ñu ne ma des na koo sédd ñaari xaaj xaaju muñ ak xaaju sant xaaju muñ ak xaaju sant doomu aadama su ko yàlla defalee xéewal mu sant su ko defee ay natt mu muñ jeex na àddina mënoo génn muñ ak sant mënta génn foofu képp koo xam ni muñkat la santkat la kon ndeke dafay wane ni moom kat day dellu ci kéemtaani yàlla yi di ci jariñu moo tax al allaamatu ibnul qayyim di wax ni bokk na ci yi wane ni kat nit ki delluwaa kon na ci yàlla nga gis ko mu nekk muñkat wala mu nekk santkat kon suñu borom ni lii lépp ay kéemtaan la waaye ñeel li kulli sabbaarin shakuur kon doomu aadama bi kat kéemtalaay nu mu nekk muñkat ak santkat kemtalaay nu mu la ëppee lu muy jariñoo ci kawtiif suñu borom bi xam ngeen ni conteneur yeeg li muy def ak giisaay yeeg yooyu yëpp tege ci kaw ndox mi di daw ay réew diggante réew ak réew fil fulkil mashuun gaal gi fees jal ah loolu kéemtaan suñu borom dëgg la xam ngeen ni yéen a ngi fàttaliku gaal ak nuuxin ga alayhi salaam gaal goo xam ne bismillah mooy essence ba bismillah mooy direction ba bismillah yi koy dawal bismillah yi koy teeral ah googu gaal day xaral doomu aadama yi moom dana avancé lool nag bañ defar bato yoo xamante ni moom avion da cay dal piste da cay am hôtel da cay am lépp da cay am waaye gaal gu mel nii moom genn la woon gu nuuxu ko la woon jeex na am na ci ay borom xam-xam yuy wax ni ba tey boo demee ci am na ay musée yoo xam da nga fa gis ay jeexintal yu mel ne lii ca gaal ga la bokkoon wallahu alam bi sahha dalik wa ala kullin kéemtaan la woon te it nag loola da nga koy gëm ndax suñu borom dafa wax ci alquran luy xaw a firndeel loola ah wa laqad taraknaha ayatan fa hal min muddakir bàyyi nañ ko fi mu nekk kawtéef ngir doomu aadama yi man cee waaru man cee fàttaliku comme firaw na ni mu fi desee ba tey nga mën a dem gis jëmmam jëg mu ñaaw lool te nuru ko bon jëm xaaw yooyu daw borom bi subhanahu wa taala mu ne wa ida xasiyakum saabu leen muuree mawjun bagg yi nga xam ni moom mooy génne ci géej gi kazulal comme aw miir wala xiin wala mbaar wala loo ko mën a tudd cim doomu aadama di tulli tulli yëkkati ba ca kaw xam ni mën naa yëkkati gaal ba ca kaw gis nga bu nan ko dijj rek muy xar ci digg bi dem kati géej yi xam nañ loolu xam ni léeg-léeg mën naa ñëw doole ci muy àndal xar lay def gaal gi wala bata bi ci digg bi wala boog mu ngi fa cëq ca biiram maanaam daal risque yu nekk daa nekk ci biir géej gi suñu borom muy dem katu géej gi ida gasiyom bu leen muuree mawjun ay vague kat bolali comme aw niir ci kaw tiim leen kawe lool te ñiy dem géej dañuy wax ni day kawe léeg-léeg kawe goo xam ni nangami mètre ca kaw gën a ngay tiit nga xam ni mën naa yëkkati gaal gi rek dóor ci suuf xar allahu akbar nga xam ni foofa sapeur jegewu fa gendarmerie jegewu fa police jegewu fa laa sa baay wala sa yaay keroog nga xam ni yàlla rek moo man billahi ndomba goo man ci takk boo ko làmbee da nga koy bàyyiwaat parce que da ngay xam ni gii moom fi ne tey lii doxut foofu moom courant ndomba bi dafay coupé nga xalaat bàyyi diw bàyyi diw mën na laa xëttale ni ak sori fii moom ma nga ca jaww ja ma nga ca jéere ja yaa ngi ci géej gi sapeur sori na fi mool yi sori nañ fi teeru bi sori na fi tefes gi sori fi sa mbokk yi sori fi yow gaal yàlla ndox allahu akbar sunu borom ni su boobaa nag daaw allah nga gis ñu daal di commencé nag gellu ci cosaan gis nga doomu aadama jàdd ak caay-caay la maanaam jàdd bu ñu naturel ci doomu aadama ak caay-caay la waaye fitra ci boppam dafa am yoo xam ni yéefar ba jullit baa ci yam jàng nga aqida jàng nga alquran na ci yam xam nga sunna xamoo ko ci bokk yam fitra bi ñëpp ko bokkale gis gis nga doomu aadama saa bu jàqee dëgg dëgg jàq nga xam ni jàq gi moom xam ngeen gii moom du jàq gu ndaw gii moom du jàq gu ndaw ndax digg géej ga amul fooy jafandu amul foofu moom jàq gu ma sëkk la doomu aadama day dellu ci fitra fitra mooy ki dénd asamaan dénd suuf gis nga wa jahadu biha wastayqan gis nga nit ki naan yàlla amut ak yooyu ay soob la rek doomu aadama day wax rek waaye gis nga bis bu demoon ba jàq dëgg dëgg dëgg dana la wan ni yàlla am na subhanahu wa taala daawu llah dañuy ñaan yàlla muxlisina lahu diin di sellal diine ji gis ku daawul julli sax sa waay ngàmp sa dara gi commencé jàpp xaat nag doomu aadama yi maanaam saa bu ñu jàqee rek dellu ci cosaan gis nga ne gis koo xam du julli du woor du nangam waaye am benn entreprise bu ko soxla muy def entretien ñu ne ko waa baal ba suba nga gis guddi googu mu ñëw jàkk moo la yoon nit ñi maanaam xam nañ lu baax de maanaam dañoo topp caay-caay rek nga gis waa joo xam ni sa way musoo koo xam ak jaamu yàlla nga gis mu yoru kurus bi socc soccal rek nga defee nag baax la fekk déedéet man damaa xamut ndax yàlla lañ koy tuddee xaw ma yàlla kenn mënu koo nax subhanahu wa taala waaye damaa dama seen jëfin yooyu loolu lay nuru léegi nga gis nit ñi def ay jëf yoo xam da nga mel ni daal kuy jëflanteeg sa mel na morom fële rek bëgg koo nax xaaral ma gaaw def nii ngir yàlla defal ma nangam xam nga yàlla nag subhanahu wa taala dafa baax ndeysaan yërmandeem daa jéetu meram mu ne yàlla maanaam xam na ni ci wa xam na ni ci xolu waa ji kii saay-saay la li ñuy yóotu doo nga tax muy julli suñu borom mën a nan du ma la ko jox de waaye ndeysaan da koy daal di jox rek léeg-léeg nag yàlla nar sa mbaax jaar foofa nga daal di fay jaare nag ndeysaan daal di gindeeku su ko defee yëg ni yàlla moo la ko defal lii keneen defu ko kudd suñu borom yàlla rek kon borom bi subhanahu wa taala mu ni daawu llaha dañuy ñaan yàlla moxlasina lahu diina commencé di ko selalal diina ji tur tur wiñ gën a miin ci turu yàlla yi nag xam ngeen ko xam ngeen yaa latif latif moom ku jàng xam na ko ku jàngul xam na ñépp ko man latif latif ndeysaan moo tax allahu latifun bi ibadi allahu latifun bi ibadi moo tax ku jàq ni ko yaa latif yaa latif mu daal di wuyu moom it ndeysaan te fekk amaana yow sax gëmoo latiifu sax léeg-léeg nga gis koo xam ni sa way day wir di yàlla latiifu sonn ci sonn ci ba nga yaakaar ni kii jaamukat yàlla bëgg la fekk déedéet nday am intérêt ci yàlla rek moo tax muy latiifu borom bi subhanahu wa taala mu ni sellal googu nag fa lamma najjaahum bu leen suñu borom xittilee ilal barri bañ wàcc ci géej gi nga gis nag kenn ku ci nekk di wane maninam nag doomu aadama yi dañuy jàq jàq dellu ci yàlla allahu akbar subhanallah la ilaha illa lu zikr boo xamoon di nga ko dégg waaye bu ñu génne na nga dégg ay man de sama ndomba gi su ma ko yóbbuwul woon man de xawma fu ma jëm nga gis waaju ñàkk joma ñàkk jom man kay ba yëfi amee ba ma seeree sama ndomba gi te yàlla xam na ni booba moom fa nekkee tarul sax ndomba bi tanu ko sax nga gis koo xam ne danaan man kay ba ma si crée sëriñ diw te nga gis léeg-léeg nga gis ku ñàkk jom ku bon koo xam ni ab yéefar sax ko gën nga xam ne yéefar bi sax ku tollee fii daawullaha muxlisina lahu diin wallahi da ngay gis ku jàq ba toll fii sax du def daawullaha muxlisina lahu diin sëriñ diw kooku lu mu man foofu koo xam ni ndeysaan moom faatu nañu jàppoo ko suul ko bañ ko suulee defal ko ay mar bu taalal koy làmp moom yëgut lu xew ah ay sëtam dee fi ci ginnaawam te mënu ci dara ay doomam dee fi ñu séddoo alalam war ci ay kaat kaatam ah lam jota dajale ku si ñëw ñu noosee ko lam jota am ci yére ay moroom ay nit ñi di ko sol ay soxnaam ñu donn ko lay nit ñi def ku dee daal yërëmtalu yërëmtalu goo xam ne kuy dellu ci yàlla rek nga war a dellu yooyu taxawut de li taxaw mooy dellu ci yàlla subhanahu wa taala foo mën a nekk nag mu xittali la mbokk yi yéen a ngi fàttaliku ñetti gaa ya duggoon ca xuntuma nga xam ni fan nga mën a xalaatee tiis wu doy nii ay nit yu ànd dem ci ba ci ab aw xur kenn néew fa kuy romb amu fa ndax mi ngi taw foofa ruqe ñu ne nañ daw dugg fii ñu dugg fa aw xeer ni gën a lën ni këpp tëj leen foofu moom ku mu daloon ci ñun da ngay daal di feranku laay rek xaar dee parce que boo yuuxoo kenn du dégg ndax fatt na yoonu du yoonu rombukaay ba kenn dégg sa yu yow boo yuuxoo sa kenn dul dégg ndax fatt na foofu yàlla rek fi sës allahu akbar bu ko defee nag foofa nag ngay ngay xam ne ndekkate nag inna allah huwa alxaqul mubin jaaxle am kenn ku ne xamut nan ngay def benn waaye mu ni te ñoo seet jaamu yàlla yi ñu def ñu def ci tawassul kenn ki mu ni man day suñ borom amoon naa benn doomu bàjjen ma bëgg ko lool ñu bañ ma kaa may ah mu dem ba jamono njatt ko mu ñëw ñaan ma ci sama alal ma bañ ma ni ko faw ñu njaaloo bis ba mu ma ko nangulee ma dem bañ njaaloo moom sama xel dem ci yàlla ma tiit yëkkati ci li ma am jox ko yàlla bu fekkee lii ba ma koy def yow rek yaa taxoon ma def ko xeeti li ñu ñun ku ko wax ci ñun parce que ren yàlla yàlla rek yow rek yaa taxoon ma def ko ku ko wax ci ñun sa jaamu yàlla goo fi yaakaar ba di ko waaj a yëkkati naan yàlla yaa taxoon ma def ko ba sa xel mi ne la ah yow da ngaa fàtte bu nee la da ngaa fàtte rek nga fàtte ne loolu lim lay wan mooy ñun suñu jaamu yàlla yi li ci rax bari na de bis boo jàqoon tey ma nga ni xaaral ma yóotu genn jaamu yàlla gu ma ma sa def yàllaa taxoon jaamu yàlla goo yóotu muñ la ma nga da nga maa ñemee laal ma nga laal ma da ngaa fàtte yow moo lay wan ne am na loo fàtte raxoon nga ko bi mu waxee loolu ndeysaan xeer wa ni dageet arrière mel ni daal ponkal mu muñ fuus rek ñi ngi seen ci biti waaye nag bopp sax xajul waa ji mu ne ah man la saay bal jeex na keneen ki mu ne man dama amoon ak surga surga bi naqari deret lool bi waar yu waaj weer yu waaja dee ñu xuloo mu gedd fay nga bàyyi ko fi ma jëndee ko ay naga ki xara ki béy yëf ya màgg màgg màgg ba bari di ay gét bi mu ñibbisee ma delloo ko lépp yow suñu borom loola nga xam ne mën naa caa sàcc te kenn du ko yëg su fekkee yaa tax ma def ko xittili ñu mu ne dageet gën a puusaat waa ji mu ne man da jeexal naa may ki ci des daal di jël mu ne yow sunu borom te nañ ko déglu ñun gone yi yow sunu borom ma ne damaa amoon ñaari wayjur ormal leen lool su ma musaan a wutti ba ñëw sàmmi ba ñëw ëndaale soow bi balaa maa naan wala sama soxna di naan wala sama doom di naan baay ak yaay ñooy njëkk a naan ba may doyal ngeen ñu ne waaw ñu doog a naan su fekkee la ma koy def gëm ak way jur ak yow rek yaa taxaw def xitti li ñu mel ni saa yu quatre-vingts bu ñëw yëkkati xeer wi ni ko teg fële ñu génn dem seen yoon allahu akbar mbokk yi ndax ñun bu ñu tolloo ci tiis bu toy nii jàq mbir mi këcc ci sa kanam xoolal ñun bu problème ñëwee nañ seet commissariat bi nekk fële kii kay sama xarit la benn mbokk ba woon benn jafe-jafe tribunal noonu lañ ko woote te li lay wan ni maanaam ngëm gi ak jox gi ci yàlla des na doomu aadama bu dara nii rës ci kanam la muy jëkk xaar rek mooy moyen ni boppam te fekk yow doo dara non non am na am na benn commissaire bu ñu xam am na benn avocat bu ñu xam nañ ko jéem a woo yow yaa ngi def ay man-mani doomu aadama rek yow gis nga mbir bu ñuy rës ci sa kanam sa xel na dëkk njëkk a dem ci yàlla subhanahu wa taala démb benn mbokk mi ngi may nettali fekk ñuy waxtaan ci tooñ borom xam-xam wala lemee noonu fële ca Misra benn waaye dafa dóoranub liif Abdul Hamid Kishk liif xam ngeen Abdul Hamid Kishk ni mu mel tar ak liif ak koo xam ni sa waay wallahi naxsibu wallahu xasibu wala nuzakki ala allahi ahad waaye borom xam-xam bu ragal yàllaa ngoo mu yëkkati ay loxoom fa saasa ñaan ko yàlla waa ji dafa accidenté ca saasa ma muy dem ñaari loxo yi dagg ñaari tànk yi ñu yóbbu ko hôpital bi ko cheikh bi yégee mu ñëw di ko seet si ndeysaan waa ji mu nit téye leen ko bala moo ñaanaa waaw bu ñaanaatee musiba am parce que daawatul mazlum ñaan ak ku nu tooñ musiba la xoolal affaire bi ni mu gaawee nga xam ni automatiquement dafa mel daal brancé rek mu yegg si moo tax yàlla subhanahu wa taala ala kulli shay'in qadir moo am kattan ci lépp kon lii lépp di ay kéemaani sunu borom waaye sunu borom ni falamma najjaahum ila al barri mu leen xittilee ba ñëw ci jéer gi nag fa minhum muqtasid nga gis gars yi commencé tendee falu muqtasid am nañ ci borom xam ko ne mujahid dañ ko firee mu nekk ab yéefar waaye li gën a dëgër mooy mu nekk kuy tendee falu xam nga muqtasid mooy koo xam ni tey da ngaa ne woon ci problème yu toll nii yaakaar naa ni guddig biig gu la fekkoon ca géej gi mbir ma dal noonu yaakaar naa sa guddig tey war naa soppeeku guddi ya passé woon waaye de doo ko def de boo yegsee kay ni ngay njëkk a def mooy sant sëriñ diw ba noppi nag fas yéene nelaw ba ba biddanti nag moom fas yéene nelaw ba biddanti muqtasid mooy di teen defalu mel ni ku yàlla defalu dara wa ma yajhadu deesul du weddi bi ayatina ci kaawtif suñu borom yi illa kullu qattaar lu dul waajoo xam ne ab warkat la qattaar mooy gaddaar mooy ku ñu tuddee gudar ab warkat kafuur di koo xam ne kuy weddi la xéewali suñu borom yi ni doomu aadama ji bu ñu bisee kat dafa war a soppi aw dundinam ah nga xam ne nga gis kenn ci demkati géej gi nga dégg ku ne diw ñoom doon dee ba diw ñoom doon dee wa- fa la ma fekk gis nga waa joo xam ne nee nañ ba batala joolaa mucc faatoo yow nu mu traité labee yow ci ñu mucc nga bokk nga génn di organiser waat ay show mooy lii rek ak i caaxaan xam nga doomu aadama yi gis nga jom jom lu baax la ci doomu aadama rawatina ku gëm yàlla nag moo tax sunu borom mu ni warkat dëgg mooy mel nii weddikat dëgg mooy mel nii sunu borom mu ni yaa ayuha nnaasu ee yéen nit ñi ittaqu rabbakum ragal leen seen borom yàlla ki dënd asamaan si def suuf doole jii ñu doon wax ki ko am boo ñaanee moom mooy wuyu moom rek mooy dëgg tiim ñépp am lépp sañ lépp moom lépp na ngeen ko ragal kooku nawewut de sunu borom mu ni wax saw na ngeen tiit tey bàyyi xel yow man bis boo xam ni saa bu yegsee te dina ñëw laa yajzi du mën a fay waalidun ab wayjur an waladihi ci doomam wala mawluudun doom du mën a fay wala mawluudun déet doom huwa jaazin di fay tamit an waalidihi ci wayjuram say an dara bis la boo xam ni bun fa dajee ca nan fay dajee ci kattanu suñu borom ak kéemtaanam doomu aadama bi bu gisee way juróom firit lay def daw lu tax ndax bañ mu ñaan la ci sa tiyaaba yi way jur bu gisee doom firit lay def daw ndax bañ mu ñaan la ci sa tiyaaba yi jabar seen jëkkër naa xanaa du kee moo kee sànni yaay nekk ni ko man man kay du ma sax dak daw parce que tiyaabaam yi moom lay kolkololal fu mu ko dugalee àjjana nit seen soxnaam xalaatu kii ni sama soxna mu dummóoyu la wala ginnaaw fële du la nangoo xam sax maanaam foofu desul nangoo xamante lu tax ndax mayante tiyaabaa fa xajut moo tax xamante du fa xaj sunu borom mu ni su wayjur yi bëggoon a dimbali doomam du am lenn lu mu ko mën a dimbalee foofu moo tax yonent yàlla bi ni Fatima kaay jël ci sama alal li ma am te xam ni lii laa am te nga xam ni àllaaxira mënaluma la ci kanamu yàlla dara allahu akbar mbokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam abal qaasim nga xam ni àjjana du ubbeeku mukk lu dul mooy njëkk a dugg sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar bu dee ma wax doom kaay ñaan ma mënaluma la fa yàlla dara mbokk yi nag xel dina nangu keneen di mënal keneen dara foofa addina dafa am yoo xam ne xel sax mënu koo nangu doom loo bëgg bëgg bëgg sa wayjur soo ko bëggoon a fay foofu doo ko mën a fay sunu borom ni bàyyi leen ci xel de te ngeen xam ne inna waada allahi digab yàlla bi xaqun dëgg la dëgg la de tey nga yenu suul suba nga yenu suul ginnaaw suba ñu yenu la suul tey nga yenu suul suba nga yenu suul ginnaaw suba ñu yenu la suul di suul di suul di suul di suul ba ñi fi des suñu borom faagaagal àddina ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daje fa inna waadallahi xaq dig ba dëgg la faw rek doomu aadama yi al yawma bi sab tey tujzawna ma kuntum taamaluun tey la yàlla di fay li ngeen doon jëf suñu borom ni inna waadallahi digab yàlla bi xaqun dëgg la falaa taxurrannakum bu mu leen wor alxayaatu dunia dundug àddina gi hiya dunia taqulu min fiha xadaari xadaari min batshi wa fakki àddina day ware de mbokk yi wallahi day ware doomu aadama ndeysaan da koy topp di daw ci gannaawam ndeysaan nga xëy rek mu mbas la nga jaalu mu continuer ka annama hiya fi taarifiha xulumun àddina daan mel ni boo ko doon misaal ay gént la safaauha kadarun lu neex rek lu set rek bu subaa mu lënj ah raaxaatuha saqamun noflaay boo fi am rek feebar bi topp ca gis nga de sababuha haramun boo fi nekkee ndaw bu ëllëgee nga nekk màggat gis nga de laa yastafiqu min al ankaaji saaxibuha loo am ci alal karwaasi addina yi moom faw mu dal ci sa kaw même boobu amoon lu toll ni la buur yu njëkk ya amoon allahu akbar loolu doomu aadama su ko bàyyee xel ana borom doole yi ana borom puissance yi ana ñi jiite woon nguur yi ah ana ñi jiite woon addina bi ana ñi doon dogal boo waxee gars yi ne ana jamono yu dogal ana ñooñu ana ñooñu ana ñooñu tataanaw jamian wa maata alxabar ñoom ñëpp dee nañ ba jeex tak seeni xabaar nekk xabaru kaana gis nga boo xalaatee loolu 1956 1945 ña fa nekkoon ay xale yu góor ah 1930 ana ñu nekkoon ay xale yu góor ñëpp ak i booy faagaagal nañ ndeysaan dee nañ beneen génération yi ñëw ah da ngaa yaakaar ne yow kon doo wàññaat ay at ca kanam rek lii may wax nii keneen toogaat ci beneen jàkka ndeysaan di ko wax fekk ñun moom dee nañ bu yàgg yal na yàlla yërëm su booba gis nga de sunu borom mu ni fala taxurrannakum bu mu leen war alxayaatu dunia dunduk addina gi wala yaxurrannakum bu mu leen war billahi ci yàlla alxaruur warkat bi muy iblis iblis warkat la yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum alcheytaanu illa gurura da leen di dig di leen débétloo tuulul amal gudd ay mbébét su ma liyee lee ma lii lële ma kële kii ma kii kii gis nga ndeysaan fama qada ahadun minha albanatahu moom daal kenn faje ko fi ay soxlaam ba mu jeex rek ku dee bàyyi projet yu mag ah yow yow déewa ko yow feebar goo di feebar lu mu jot ak dee mbokk mi ah wa kam min saxiixin maata min gayri illatin ñaata yoon nga xam koo xam ne dara jotu ko mu xëy ni këndam dee wa kam min maridin aasha xiinan min addahri ñaata nga xam ab teg yàlla li muy def nag mooy gis ku tëdd feebar lu mat ñaar fukki at ak nàngam ba ki ko doon toppatoo dee ba ko fi te moo ko gënoon a wér gis nga de doomu aadama ji loolu lay bàyyi xel la war mooy tazawwad min attaqwa fa innaka la tadri ida ma janna allaylu hal taishu ila alfajri utal ëmb boo xam ne da nga koy duy ay sagar ba mu fees dell sagare lan sagari tiyaaba ay tiyaaba ay morso yu baax ay tiyaaba mu fees fa innaka laa tadri ndax xamoo ida ma janna laylu su guddi gi ñëwee nii lëndëm hal taisu ila alfajri ndax fajar dina la fekkam déet wóoru déet man ngaa tëdd ba guddi rek fekk yow da ngaa bokk ci ñu war a dem wala di yatawaffakum bil layli wa yaalam ma jaraxtum bin nahaar ah sunu borom xam li nga am na ñoo xamante ne seen daf leen di faat ña ca des wa yursilul uxra ila ajalin musamman guddi goo tëdd nag même guddi tey gii ñu nar a tëdd daam ñoo xam ne suñu borom ci lay collecté seen i ruu ñoom ñëpp ñu nar a faat mu ne wa yursilul uxra ñi ca des nag ñu xëy yeewu dem liggéey ila ajalin musamman ah ñu collecté yóbbu seen i ruu yow nga xëy liggéey da ngaa defe noonu lay wayee rek benn guddi ngay kii rek ndeysaan fekk da ngaa bokk ci groupe bi war a dem suñu borom mu ne wala yaxurannakum bu mu leen war billahi fa yàlla alxaruur warkat bi muy iblis nga xam da lay bébét loo rek ah sa waay deewagoo yow dese nga nanga ah yow ñaata nga am 30 ans ah 30 ans yow deewagoo xanaa war ngaa mën a am 60 ans kon dese nga fi yeneen 30 ah ndeysaan te it li benn mbokk waxoon nag ñaata at nga am déedéet amoo loolu de ñaata at nga ñàkk lañ war a wax yow ñaata at nga am nga ne ma dem naa ñaar fukki at ak juróom ah yow amoo ko de loolu da nga koy ñàkk xam nga doomu aadama yi li ñuy wax sax seetluwuñ ko. ñaar fukki at ak juróom nga am déedéet amoo ñaar da ngaa ñàkk ñaar fukki at ak juróom ndax li nga am mooy li nga téye te ñaar fukki at ak juróom ñi dem moom da nga dootul dellu si waat yow fi ne amoo loo am xamoo loo am sax yow parce que benn mënoo wax fukki at nag xamoo ci kanam lan nga fa desal kon amoo dara benn waaye bu ne nag ñaata at nga am da nga naan ko ñàkk naa ñaar fukki at ak juróom-ñeent bu fekkee 39 ans nga am 29 ans da nga naan ko ñàkk naa ñaar fukki at ak juróom-ñeent. ba waaja ne Fudayl ibn al-Iyaad ah ba ko Fudayl ne foo jëm mu wax ko fa mu jëm mu ni ko ñaata nga mu ni ko juróom benn fukki at mu ni ko juróom benn fukki at ngay toog jëm ci yàlla yegg goo ba léegi dafa yuux parce que daa bari juróom benn fukki at te yent yàlla bi nee na ku yàlla bay juróom benn fukki at yow moom say mbir jeex na yàlla joxal na la ngànt ba mu jeex tàkk dagg na sa ngànt yépp amatoo lay yow ku juróom benn fukki at am say lay yépp yàlla dagg na ko amatoo lay yow ci diggante bi sunu borom mu ni inna allaha sa borom yàlla indahu nekk na fa moom xam-xam ak ilmu saa bisab alaxira wa yunazilu lgaysa mooy wàcce taw bi te moo xam kañ lay wàcc wa yaalamu ma fi l arxaami moo xam li ci biiru jigéen ji lum doon xadis yu bari mutawaatir la ñëw na ci bunt bii xamsun hunna mafatixul gaybi laa yaalamuhunna illa allah juróoma ngi yoo xam ni ñooy caabi kumpa yi yàlla rek ko xam bi ci njëkk mooy indahu ilmu saa jibril sax xamu ko mikaayil xamu ko asrafil xamu ko yonent bi xamu ko amul ab yonent bu ko xam laa malakun mursal wa nabiyyun muqarrab yàlla rek moo ko xam wa indahu ilmu saa laa yaalamuha illa hu yàlla rek moo xam mbirum àllaaxira gis nga de wa indahu mafaahim al-ghayb la ya'lamu illa hu wa ya'lamu ma fi al-barri wal-bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumati al-ardi wa la ratbin wa la yabsin illa fi kitabin mubin ci suuratu An'am sunu borom mu ni yàlla rek mooy ki xam kumpa kañ la àllaaxira kenn xamu ko lan deux mille nangam ak man ma dana dégg loolu sax daa yàgg loolu dafa dafa reelu sax kañ la àllaaxira yàlla rek moo ko xam subhaanahu wa ta'ala amul kenn ku ko xam ba ko jibril yonent bi jibril laaj yonent dani ko ki koy laaj ki koy laaj ñoo ci bokk yam kenn xamu ko wa yunazzilu al-ghaytha sunu borom mooy wàcce taw bi te moo xam kañ la taw di wàcc wëndeelu naan sa sàngara ba mu neex nga samp sa kii ni alxamis mu taw neex yàlla taw naqari yàlla taw sunu borom dégg ko ba noppi mel ni ndeysaan ko fi nekkul gis nga loolu ak kéefër la al-allaamatul imaamul qurtubi rahimahullah nee na képp ku wax lii ab yéefar nga dañ laa war a rey soo demee ci tafsir mu ni lii ku ko wax yéefar nga dañ laa war a rey kañ lay taw day kàcc rek day day day tombee rek day tombee xam ku ku haan yi buxaaba yi xam ngeen yonent yàlla gis nga malaaka mi yore taw sax xamul kañ lay taw malaaka mi yore taw sax xamul kañ lay taw. ma ni malaaka mi yore taw laa wax xamut kañ lay taw lu ko sunu borom ak ko wax allahu akbar kon fadlan an gayri sunu borom bu dogalee benn dogal comme ni mu ñëwee ci xadis bu wér yonent yàlla bi nee na malaaka yi dañuy mel ni ñu xëm jàpp yëngu gu foor ñu dégg ko lu dul ñu soob sa borom sunu pare dañ naan maada qaala rabbukum allahu akbar lu seen borom wax lan la yàlla wax fekk yàlla subhanahu wa taala dogal la muy dogal ña ca kaw jottali ko ñu ci suuf ñu suuf jot foofu nag fa la buxaaba yi sayaatin yi yéeg ci kaw for benn wax buy wane ci nawetu ren nangam ñu ñëw fen juróom-ñeent fukki fen ak juróom-ñeent boole ko benn ba jox ko buxaaba ba moo tax bu ñu la wërloog fenkat da ngay jàpp buxaaba doog a seeti keneen ndax mën ngaa am deuxième position waaye première position mu jëlal buxaaba moo tax loolu kenn du ci sukkandiku seen wax yooyu. wa yaalamu ma fi l arxaami suñu borom moo xam li ci biiru ndaw si xanaa xanaa doy na ci tegtal rek mbokk yi malaaka mi ñëw suñu borom yebal ko pour mbinduk mbinduk liir bi day borom mu ne ay rab yow sama borom adakarun am unsa góor lay doonam jigéen malaaka mi ñëw xamul góor lay doonam jigéen da koy laaj malaaka mi ci xadisu Abdullah ibn Mas'ud day wax ni waaw góor lay doon wala jigéen suñu borom ni ko góor la maa mu ne ko jigéen la asaqiyun am saay day texee ne day texee mu wax ko ko maa ajaluhu luy aw aapam mu ne nangami fan wa risqu wërsëgam sunu borom mu ne cinq millions du ko passé ci àddina moom wërsëgam du gudd lool lool lool te it gis nga nag doomu aadama dañu defee ñàkk lañ waaye ñàkk ñu de gis nga bëgg a juddoo ba tey li fi jot a jaar ci sa loxo nga moom ko boo ko dajalee ay millions yu dul jeex la millionnaire nga bëgg a doon doon nga ko ba pare nag millionnaire nga bëgg a doon sunu borom teg na la ko calculal ba nga juddoo ba tey li nga mas a am ëpp na ay millions waaye suñu borom du la ko joxandoo ndax walaw basata allahu rizqa li ibadihi la bagaw fi l ard bu ko yàlla joxandoo woon da ngay deew te ñaareel bu la ko joxandoo nga dee de bu la ko joxandoo rek nga dee rutu tuti baaxul de ah yow yàlla daa dogal war ngaa dund soixante cinq ans soixante cinq ans lu gàtt gàtt gàtt war nga fee am trente cinq millions nga bëgg suñu borom joxandoo la ko day day góob di dajale rek suñu borom ni na ko pëyëx trente cinq millions ya ñëw tombeeg sa soixante cinq ans yi des ndax yaa ngi yem trente cinq ans nga xëy xëy dee dee gu bette parce que yaa lekk sa wërsëg mu jeex kon faw nga jóge fi moo tax ñu la ko yàlla joxee ak a baax ni mu la koy joxee sant ci gis nga bis boo fi dof dof loo yàkkamti bu bëgg koo lekkandoo da nga fi gaaw jóge bu sa wërsëg di jeex rek ngay dem baal mu di la ko jox ni mu la koy joxee ndànk par ndànk rek pour nga des fi at ba jeex nga dem sa yoon moo tax suñu borom mu ni wa yaalam maa fil arxaam li ci biir bi loolu da jotewut ak dara ab docteur dem ba mu yàgg mu yoroon appareil képp ko ci biiru ndaw si xam ne kii góor loolu du tus loolu xam nga lan la mi ngi mel ni man mii di tafsir ma jóg yurndu ci néeg bi seen ni diw moo tëdd ci lal bi su ma ñëwee ni leen xam ngeen ko tëdd ci lal bi du ngeen ko xam man li ma def ba xam ko mooy damaa jub effort laa def dama am ay jumtukaay yu ma jëfandikoo mooy ay tànk ki bët ubbi néeg bi yurndu xam ni diwa fa nekk loolu du dara xam nga lan moo jafe mooy jóge fële ñëw toog fii te ne diwa tëdd ci néeg bi te gisoo ko tëdd ci néeg bi loolu nag nit mën na koo def waaye bu ko defoon tey duñu jaaxal xam nga lu tax duñu jaaxal seytaane mën na la ko wax ndax yaraakum huwa qabilu min xaysu laa tarawnahu yaraakum huwa qabilu min xaysu laa tarawnahu seytaane mën naa ñëw déey ko ko waaye nan wax moom kañ lay dee moom moom nan wax kañ lay dee loolu lañu lañ bëgg mu wax ni ko ak taw bii di ñëw kañ lay taw waaw ak waa jàkka ji kenn ku ci nekk na la wax ñaata fan ngay am kàcc ci rek lu mu la ci wax bul gëm reetaanal dem day kàcc ci rek suñu borom mooy wa yaalam maa fi arxaami li ci biiru ndaw si xam nga yenn jumtukaay yi nga xam mag ñi dañ ko xam appareil bala muy am ngay dégg ñu ne ndaw su fekkee dafa ëmb muy sentir ni wetu ndeyjoor gi daal gën a diis wetu càmmoñ gi mën naa rafet njot xëy na jigéen la loolu dañ ko doon ay nattukaay ke loolu la du kumpatu dara ay nattukaay rek la nag boo xoolee fi tolloog weer bi mu xaw a gën a ñuul que côté càmmoñ bi nga xam ni kon góor la yooyu ay nattukaay rek kese yoo xam nit ci dañ ko doon tamit di natt rek waaye nag loo xam kumpa la wala gayb la wala buxaaba la déedéet kon suñu borom mu ni wa ma tadri nafsun amul benn bakkan bu xam maasa taksibu gadan lan lay fàggu ëllëg lan ngay doon bi nga nekkee gone suñu nee loo bëgg a doon danga naan nangam laa bëgg a doon waaye est ce que moom ngay doon xamoo ko de déedéet suba looy yeewoo looy programme da nga yeewu ni suba damaa bëgg a xëy na nga far nga dee sax ci guddi gi nag mu jeex baa nga xëy programme lii ba nas teg ak benn affaire ñëw fël mu dem kon kenn xamul luy xew ëllëg ëllëg luy xew yàlla rek moo ko xam subhanahu wa taala moo tax looy def rek waxal insha allah bëgg naa nangam insha allah bëgg naa insha allah waaw bu dee soob na suñu borom subhanahu wa taala wa ma tadri nafsun benn bakkan xamut bi ay ardin tamuutu fan lay faatoo allahu akbar ñëw na ci xadis bu wér yonente bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma jaala allahu maniyata abdin bi ardin illa jaala lahu fiha xaaja xadis boobu ñëw na ci ay riwayat yu bari yàlla du namm ni fii nga war a dee lu dut même boo fa mësta am soxla ba nga juddoo ba tey suñu borom dalay defa nga am soxla pour dem fa dee ji fa ndeysaan waa ji daa bëgg a dem Europe sonn ci sonn ci sonn ci ndeke balu fi tal ba koy rey ab tubaab ko koy dóor te foofa la nekk du ñëw fii kon faw nga fekk ko xam ngeen rep li wala fi tuddee rep rep nit ki da koy jëli léeg-léeg day jëli ak repam léeg-léeg nit day toog ba mu yàgg mu jëli ak reppam ak repp nit ki da koy jëli te léeg-léeg mbir mi day demee noo xam ne da ngay xam ne repp gi moom yàlla daal moo ko dogal waaye mën warute woon a mën a am maa ngi fàttaliku sunu mbokk moo xam ne ñoo doon jàngandoo ca daara ji ci géej gi la doon liggéey bis bi muy lab warute woon a liggéey léegi mu ni day liggéey kooku benn la ñaareel mooy gaal gam dem du gaalam muy ñaar ñetteel bu ñu tool mag gi naan ko gaawal léegi léegi léegi léegi nga yàq añ bi maa ngi ñëwaat léegi dañuy taf taf rek ñëwaat gis nga de ba mu demee fa la jaar affaire da nga koy jëli léegi da nga koy jëli saa bu suñu borom nammee nga dee fenn rek ci jamono yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam yéen a ngi fàttali ko xissa boobu nga xam ne waaja dafa ñëwoon malakul mawti ñëw ja xam malaaka yi ñoom dañuy ñëwal yonent yàlla yi alayhi salaatu wasalaam waa ji toog ak su bëkk néegam la mu toog ak Souleymane mu di ko xool rek bi mu demee mu jàq ni ko waaw kii moom xool yi mooy xool métti na de mu ne ko kooku de mooy malakul mawti mu ne kon tey ma dee kooku man la doon jël si ah léegi loo bëgg mu ne ko xanaa dama ngelaw li yóbbu sànni ma ca ginnaaw ind ca fa na sori rek na sori foofu moom mi sori fa malaaka ma jóge ba ñëw kay xanaa mën na laa fekk foofa ah sunu borom daal di digal Souleymane ni ko defal ko li mu bëgg waa ji defal ko li mu bëgg mu ni cëpp malaaka mi ni cëpp xëcciroo gi dem yoon fekk foofu la waroon a tëdd dee fa malaaka mi dellu see Souleymane laaj ko alayhi salaam mu ne ko ah man kat dama bëgg amul jaaxle waa ji moom heure sàngam fii la war na dee te jamono bi daanaka ay cër suñu ndaw moo ci des ma ñëw fekk ko fii loolu kon kay faw nga def ni nga def ma def ni ma def mu dee gis nga rek amul benn doomu aadama lu dul suuf sam war a faatoo rek fa lay war a faatoo moo tax suñu borom mu ni wa ma tadri nafsun benn bakkan xamut bi ayi ardin tamuutu san suuf lay faatoo inna allaha sa borom yàlla alim aji xam la waaye xabiir ku denc kumpa la maanaam dara ump ko moom sunu borom dama adama yi ku faatu xam na ku juddu xam na wallahi nombre liir yiy juddu par bis amu ca benn boo xam ni dana juyaloog morom ma ci suñu borom nombre néew yi faatu par bis kazalika te gis ngeen jamono bi nag néew yi niñ bare xam nga bu jëkkoon boo déggee ku dee bala nga kaa déggal ndeysaan bu jamonoy waaj a jeex suñu borom da day keriyeel yu bëri yoo xam ne day day rayaate rek ah avion yi tàkk yi daanu gaal gi suux oto yooyu mbëkkante tere yooyu daanu volcan yi yëkkatiku pistolet yeeg yooyu yëpp gis nga yooyu gis nga yàlla ni mu organisé adduna bi ak a baax ni mu ko soobee rek gis nga jamono mooy waaj a jeex moo tax li ko lii tax mu gaaw jeex lépp suñu borom yembal na pistolet yi tiire waateeg façon yeeg pompe yi ñuy pompaateeg lekk yu bon yi ñuy lekk pour gaaw màgg ndax moo nga mën a gaaw a dee yooyu yëpp maanaam gis nga gis nga li ñuy lekk ñun dañuy lekk pour gaaw màgg pour gaaw a dee maanaam daf na li ñu ngi fi nekkee li ñuy def mooy dañuy gaaw xajal ñuy waaj a ñëw bu ko defee fan yi gën a gàtt lekk gi gën a bon gis nga poussière bi ñuy noyyeeg ndox mi ñuy naan ak lépp maanaam daal luy tax ñuy gaaw a dee lépp suñu borom yembal ko lépp ngir ñu gaaw jóge fi bu ko defee bu ñu fi gaawee jógee ñeneen gaaw ñëw gis nga bu ñeneen ñëwee yi gën a tax ñuy gën a gaaw a dee daal parce que bu ko defee affaire bi mel ni daal machine buy wal rek wal di sànni rek bu ñu wanee nag ba këll bi jeex tàkk nga xam ne amatul lu dugg ci machine bi nag wala fi xafi suuri yegg si kon ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq fi dunia wal axira waaye ñu ngi ñaan suñu borom mu boole ñu ci ñi nga xam bu ñu déggee wax dañuy seet la gën a jub la gën a baax ñu daal di koy topp yàlla suñu borom wan ñu yoonu gindeeku ba ñu xam ko topp ko te yomb mu yomb ñu lool yàlla suñu borom wan ñu ay caaxaan ba mu leer ci ñun ñu mën ko moytu dikk wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain